laa xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim alxadiisu taasiu wathalaathuuna fanweereelu xadiis ak juróom ñeent imaam Nawawi nee na an ibni abbaasin jëlee nañ ci sayduna abdullahi doomi abbas mm-hmm. doomi sayduna abbas mm-hmm. radiallahu anhuma na mm-hmm. yàlla boole leen gërëm anna rasulallahi naka yonantu sallallahu alayhi wa sallama mm. qaala wax na mm. inna allaha naka yàlla mm. tajaawasa jéggal na mhm. lii ngir man mhm. laa mexilla la mhm. yàlla na te mu jéggal kan la jéggal an ummati sama xeet wala ñan la jéggal an ummati sama xeet lu mu leen jéggal ñett yi di dikk bu njëkk bi mooy alxataa njuumte wa nisyaana ak fàtte wa mastukrihu alayhi ak lu ñu leen forcé ne xadiisun xasanun xadiis ju rafet la rawaahu ibnu maajata imaam ibnu maajata wal bayhaqiyu ak imaam bayhaqiyu wa xayruhuma ak kudut ñoom ñaar ñii hmm. ku mel ni ibnu xibaan ci saxiixam hmm. solo na ko itam hmm. yàlla yàlla boole leen ñoom ñëpp yërëm gërëm leen yonentu sallallahu alayhi wa wax ne yàlla baal na sama xeet bi te ci sama barke la leen baalee ñett yi njëkk bi mooy njuumte mm-hmm. mooy lu waay def te teyuwut ko mm-hmm. ñaareel bi mooy fàtte mm-hmm. loo xam ne sa xel a ci génn waaye xamoon nga ko ñetteel bi mooy luñ la forcé ñu forcé la def loola loo warta def te mënoo jañ moo amoo pexe ci jëñu mm-hmm. lañ la def loo mm-hmm. ndax ka la ka am na kattan mm-hmm. ak mën a wóyal ba forcé la lam lay ba def loolu lam lay forcé baa soo ko defut am na kattan gum la mën a loree ñetti ngant yi yëpp nag alquran saxal na leen mm-hmm. yàlla wax na ci suratul baqarati mm. ci ñaanu jullit yi rabbana laa tuaaxidna in nasina aw axtana mm-hmm. borom yàlla bul ñu jàppee mm. ba topp ñu dem fàtte nañ mm-hmm. mbaa ñu juum wax na ci suuratul ahzaab wa laysa alaykum junaaxun hmm. fii ma axtatum bihi hmm. bàkkaar warub leen hmm. ci li ngeen juum walakin ma taammadat qulubukum waaye bàkkaar a ngi leen di war ci li seen xol yi tey bu dee forcé wax na ci suuratu naxl man kafara billahi min bacdi imaanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim gadabun min allahi wa lahum adabun adim yàlla ngay tëkk foofu ñu weddi yàlla lu dul nag koo xam ne dañ koo forcé wax loo ko baatu kufru te hmm. hmm. xolam ma nga sax ci hmm. ngëm yàlla xolam ma nga sax ci ngëm yàlla kon foofu yàlla dindina àtteeb kufru ci kuñ forcé ba wax baatu kufru bu kufru dëñee nag bàkkaar bu yées kufru tax saxul ñuy wax fekkee bàkkaaru kufru duñ ko jàppee kuñ forcé hmm. te bàkkaar yëpp weddi yàllaa ci gën a mag hmm. tu yàlla ko mu ne bàkkaar damut hmm. bokkaale waaye mbugal damut safara kon la joo xam ne bu waxee xadisun xasanun la nga xam ne mën nañ caa jàpp waaye alquran daf koy seedeel bu mu gën a dëgër sax muy seede ba mu gën a dëgër xadis mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ji njëriñ yu bëree ngi ci jàng tamit yu yaatoo ngi ci bi ci njëkk mooy yaatu yërmande yàlla ak ñëwantam ci jaam yi ba yëgati leen bàkkaar su fekkee ne luy niru mooy wala ak mooy dëgg-dëgg sax am na ci ñetti anam yi mm-hmm. loolu daf ko neex rek mm-hmm. su ko neexoon ku def bàkkaar mm-hmm. moo xam da ngaa fàtte ba def ko baa nga juum ba def ko baa nga baa ñu forcé la bu ko neexoon mu topp la hmm? kon li ñuy ci li ñuy jàngee ci xadis bi ci yaatu yërmande yàlla ñaareel bi mooy lii xaraam yépp ci jaamu yàlla ak ci yudut jaamu yàlla hmm. ko doomu aadama defee hmm. ci réer hmm. baa ci fàtte baa ci forcé dara du ko ca war dara du ko ca war attention dara du ko ca war ci li aju ci xaq yàlla dara du ko ci war ci li aju ci xaq yàlla waaye li aju ci àq doomu aadama yi adee ah, du ko wàcc moom du ko yàq du ko wàcc hmm. Hmm? Hmm. dégg nga de même su fekkee ne bàkkaar amut ca waaye àqi doomu aadama bi moom moom du la wàcc ngir réer du la wàcc ngir fàtte du la wàcc ngir luñ la forcé te détails yi dana dikk yiñ xaraamal yépp ngànt yi dafay yëgati seen atte mm-hmm. ba nga mel ni defuloo ko sax mm-hmm. Mm-hmm. ci misaal waaye ngi nii di julli mm. waaye réer tax na mm. mu foog ne wax ci julli mm. dagal na walla juum na ba wax ci julli ñaar yii yëpp du tax duñ tax julli yàqu Mm-hmm. ànd ak wax ya ca fuqahaaw yi wax na mm-hmm. Mm-hmm. li ciy tegtal mooy muawiyatu bnul xakam sayidna muawiya bnul xakam radiallahu taala anhu dafa dugg si fekk yonentu sallallahu alayhi wa sallam di julli ak saxaaba bi am ba waaye jutti sóol yi ci biir julli bi sant yàlla muawiya daal di ne ko yarhamukallah hmm. nee na ñëpp sànni ko bëtam seen hmm. bët yi hmm. maanaam ñëpp daal di ko téen xoolab li nga def lu tax nga def ngay wax ci julli nee na ma ne a yàlla ma sam man de sama ndey ñàkk na ma waxu kii la maanaam waxu tawajjo la ah man de tey tey la tey rek laay dee ñu ko wolof di waxee ne ma gis ñëpp di jël seen i di mm-hmm. dóor seen i yëpp naan ma nii mm-hmm. loolu mooy noppil mm-hmm. ne bi julli gi jeexee mm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam woo ma mm. mu ne fa bi huwa wa ummi mm. jotee naa ko sama baay ak sama yaay ma raaytu mualliman ahsanu ta ahsana taaliman min su ma gis ku mën a jàngale comme moom maa kaharani wala chatamani wala barani gëddut ma saagahut ma dóorut ma wa innama qaala dafa rekk wax inna hadihi salaata laa yasluxu fiha cheyun min kalaami nnaas julli gile dara ci waxi nit ñi du ci xéwén mm-hmm. jaatuwul ci mm-hmm. indamaa hiya takbiru mm-hmm. allahu akbar la tasbih wa tasbihu subhaanallahi la wa qiraatul quraani ak jàng alquran julli kabbar ak sàbbal ak jàng alquran maanaam ku ci euh, tisool yi mm. jaarul nga di ko ndokkeel waaye li ñuy tegtaloo ci hadis bi ba ne mm. julli ga yàquwut mm. mooy yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxut ko baamul julli su mm-hmm. yàqu woon mm. ko wax ne ko baamu ko mm-hmm. comme ne waxut ko baamu ko nga xam ne réer gim réer ba wax ci julli gi yàqut julli mm-hmm. Hmm? réer gim réer ba wax ci julli gi yàqut julli meneen misaal waaye ngi di julli ba ci digg julli gi am ku fëgg buntu néegam fàtte nañ julli mu ne ko bisimilah tafadal mu ne ko yegsil fàtte ne mi ngi ci julli mm-hmm. mm-hmm. oh, mm-hmm. mu ne waa yegsil baatu yegsil googule du yàqu julli ga ndax daf ko fàtte hmm? walakin ma taamadat qulubukum yàlla te tey wut ko hmm? waaye ngi nii soog dugg ci lislaam hmm. waaye mos a dund ci réewu julliti walla ci biir julliti hmm. xamul ne njaaloo dafa xaraam hmm. ba tax mu njaaloo kooku kenn du euh, nu naka la tuddati kenn du ko gëtal ndax réeram a tax te réeram mën nañ koo justifier ndax mu ngi dëkk ci dëkk boo xam ne hmm. daraay lislaam amul fa hmm. xamul dara ci lislaam hmm. dégg na lislaam rek mu doy ko mu tuub waaye jàngul dara ci lislaam te ci dëkk la boo xam ne la dëkk boo xam ne dëkk la dëkk boo xam ne du dëkk ab lislaam amul ku ko fa jàngal kooku su ne xamut ne njaaloo dafa xaraam dañ koy nangu ndax mu ngi soog a dugg ci lislaam jàng te mhm. ci mhm. su fekkee nag ne ku dëkk la ci dëkku lislaam mhm. dégg nga bu wootee ne xamul ne njaaloo dafa xaraam du tere ñu gëtëm ko ndax mu ci dëkk boo xam ne kenn mënu fee dëkk te xamuloo ne njaaloo dafa xaraam hmm? waaye ngi nii moom xam na ne njaaloo dafa xaraam sax mm-hmm. waaye xamut ne mm. mu woote mu woote ak réer ne moom de xam na ne njaaloo xaraam na waaye xamutoon ne gëtën war na ci mm-hmm. dañ koy wax ne sañ réeréeg ñàkk waru gëtën bu mm. tere ñu gëtën la mm-hmm. nga xamee ne njaaloo dafa xaraam mm. waroo caa dugg kon nag lépp lu topp ci xaraam nga dañ la koy def waaw mm-hmm. kii jàll kii romb feu rouge mm. xam na ne loi dafay tere mm-hmm. nga romb feu rouge te mm. taxawuloo mm-hmm. ñu jàpp ko jox ko ticket dem ci kanam juge bi ne ko ah, juge bi ne ko yow de dangaa jàll feu rouge bi mm. jàll feu bi nag danañ am juróomi point yu ñu def ci sa euh, permis boo xam ne euh, boo fayul nangam ak nangam juróomi point yooyu dana tax sa permis bi yegg ci nangami point yuy tax mm-hmm. ñu suspendre sa permis mm-hmm. mu ne ah man xamoon naa ne jàll fa rouge dañ koy tere mm-hmm. waaye xaw ma woon ne dañ la ciy loo xaalis wala dañ la ciy def ay point yuy mën a yooyu mën naa yàq mën nañoo yàq sa permis buñ ko wax ne ko ñàkk a xam pénalité yi du tere ñu teg la ko mm-hmm. da xam nga ne li nga def yoon da koo teg mm-hmm. kon la ca tege yoon laaj ko yëpp mm-hmm. dégg ki rey nit ne man de xamoon naa ne nit moom rey ko xaraam na waaye xamoon ne ku rey laa war a rey kenn du ko wax ne ko duñ la rey ndax ñax gi nga ñàkk xam nga hmm? hmm. kon réer walla fàtte walla njuumte mm-hmm. day tax bàkkaar wàcci borom mm-hmm. ci yiñ terekat mm-hmm. dafay tax bàkkaar wàcci ko bu ko bàkkaar wàccee kon mooy xaq yàlla yi yàlla du ko du leen du ko topp waaye xaqi mbindeef yi nag warlu du ca wàcc même su dee bàkkaar ba wàcc na waaye ngi nii fekk gàtt bu xeewee hmm. foog ne moom xaram la hmm. dal di yóbbu ren di jox waa këram ñu togg mu lekk hmm. gannaaw ga mu xam ne ndekete xaru dëkkandooram bi la rey dafa juum kenn dañuy wax ne amul bàkkaar ndax dafa juum waaye ndax bu dëkkandooram bi moom day perte ah déedéet moom yow moom yow ñàkk bàkkaar bi sa diggante sa borom la waaye dëkkandoo bi nga jël xaram bi ndax jaawale hmm. moom fa nga ko koy fay dañ ko wàcc fay hmm. hmm. ndax tay wut ko su ko tay woon dana am bàkkaaru sàcc walla bàkkaaru jël yëfi jàmbur ba pare war koo fay beneen misaal waaye ngi nii dañ koo forcé ki ko forcé lu mu ko forcé mu rey keneen yore fetal mbaa yore jaasi hmm. ne ko soo ko rey rek ma rey la hmm. ah moom it mu rey ko hmm. ñu ne ko lu tax nga rey ko mu ne waa jaa ngi yore fetal tiim ma ne su ma ko reyul mu rey ma dañ naan ko ndax sa bakkan bee gën a foor bakkanu ki nga rey ndax sa bakkan moo gën a foor bakkanu ki nga rey waaw buñ lay forcé dina ngay def dafay nekk loo xam ne yow rek la concerné waaye bu fekkee keneen daf cay loroo hmm. ah, lor ga nga lor kooku hmm. forcé guñ la forcé du tere ñu fay hmm. kon ki ko ki ko rayloo ak moom mi rey ñoom ñëpp dañuy responsable waaw ku rey nit ndax dañ ka dañ laa forcé nga rey ko boo ñu la rey ñu wax nga ne ah, bu ko reyutoon ñu rey ma di lay wax ne est-ce sa bakkan bee gën a foor ki nga rey bakkan yëpp a yem ci yàlla hmm. waaw naa bakkan bi hmm. même bu dee dañ dañ maa forcé hmm. man dañ maa war a rey man nit dañ yàlla boole musi waaw ndax xaqi doomu aadama du rotee ci forcé rotee ci forcé lu noonu du rotee ci forcé borom xam-xam yi danañ joxe meneen misaal ne waaye ngi nii am ponk la ko fekk rek jël ko hmm. dóor ko ci beneen beneen waay koo ko dee hmm. ñu ne ah kii dafa mel ni kon dañ koo forcé rayee rayee ko kële hmm. ñu ne ah déedéet kii moom dañ koo def xet rek gànnaay lañ ko def rek yoonam newu ci ki ko jël dóor ko ci kële kooku la ñuy jàpp rey kooku la jàpp rey kon xadis la joo xam ne gàtt na de waaye njàngale yu bëri ngi ci lii yii ñu wax ne hmm. yàlla jéggale na leen hmm. dégg nga hmm. ndégam fàtte ndégam juumte ndégam forcé am ci xaq yàlla lañu wax nag ci yi ñuy ci yi ñuy tere dégg nga de ci xaq yàlla ci yi ñuy tere waaye yiñ digle nag loolu ndax yiñ digle boo juumee ba bañ a def Hmm. baa nga fàtte ba bañ def hmm. baa ñu forcé la ba nga bañ a def hmm. ndax yooyu dana la wàcc ah waaye ngi nii dafa daal di eh, dégg nga jàpp ba pare eh, ca diggante ba mu eh, nelaw nelaw yu diis baa mu tuur ndox wala mu ngalawal ci mm. misaal mm-hmm. julli jot mm. mu jot julli mm. xamul ne yooyu nja yooyu dafay yàq njàpp bu ndax bu xamee ne yooyu dafay yàq njàpp julli gi daf koy wàcce ne ko déedéet julli gi wàccut la su fekkee ne waxtu wi génn na amuloo bàkkaar ndax da ngaa xamutoon mm-hmm. waaye du tere nag dañ naan ko demal nga jàppi julli mm-hmm. Hmm? bàkkaaru ñàkk xam gi mën mm-hmm. na ko wàcc xëy mm-hmm. wala dafa fàtte julli te njàpp mm-hmm. dégg nga mën mënuñ duñ ko wax ne ko julli nga ba pare wàcc na la déedéet euh, bàkkaaru yéexee julli gi mën na laa wàcc ndax dangaa euh, dangaa foogoon ne am nga njàpp te amoo njàpp waaye nag da ngay dem jàpp nga julli da dem jàpp lu tax ndax li nga xam ne lu war la mm. mën nañ koo dabaatal mm-hmm. waaye lu xaraam kenn mm. mënu ko dabaatal kenn mm-hmm. mënu ko dabaatal mm-hmm. Mm. moo tax bu képp koo xam ne dafa bàyyi lu ngir fàtte wala euh, dégg nga yu mel noonu du ko wàcc de du ko wàcc bàkkaar bi nag mën na ko wàcc waaye def gi moom du ko wàcc tegtal bi mooy yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis joo xam ne mu ngi ci buxaari hmm. mu ci muslim it hmm. ne man naama an salaatin hmm. aw nasiyaha fal yusalliha ida dakaraha waaw ku uh, faat ku nelaw ba julli weesu maa mu ba waxtu yu génn na ko julli saa yu ko fàttaliku na ko julli saa yu ko fàttaliku kon ngànt li hmm. mooy yéexee gi hmm. waaye fay gi moom hmm. du ci am ngànt mu fay gi du ci am ngànt mu loolu mooy koo xam ne dafa fàtte waaye ngi nii nag moom réer a mu julli te julleewut na mu war a julle julleewut na mu war a jullee masalan hmm. dal muy tumaninatu hmm. dafa war julli hmm. ngay gis waaye ci julli parax-paraxee julli am na ku ko def ci kanam yonentu yonentu ne ko irji' fa salli fa innaka lam tusalli dellul nga julli yow julli woo def ko ñetti yoon yonentu ne ko dellul nga julli yow julli woo mu ne yonentu walladi ba'athaka bil haqq a ngi wàcc yàlla mi la yónni ci dëgg laa ahsinu ghayraha fa allim ñu xamal ñu fa mhm. allamahu yonentu jàngal ko sallallahu alayhi wa sallam xam nga kii mënoon nañoo wax ne ah moom lii rek la xam kon julli ko wàcc na ko waaye mhm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam mhm. daf koo xamal nu ñuy julle dégg bu fekkoon ne bu mu ba mu jullee farax faraxi daf ko ne ko ah, booy julli waa ah, defal nii ne kon réer la ci luñ la digal waaye daf ne ko demal nga julliwaat yow julliwoo hmm. baamtuloo ki mu ko baamtuloo julli hmm. mooy wane ne réeree mbir hmm. ba defee ko noo ko war a defee lu tax mu wàcc la tax mu wàcc uh-huh. am nañu nit ñi am nañu ne waaw julli ya weesu woon yonentu waxut ko ne ko na leen baamu ñoom ñëpp julli ya weesu woon yonentu waxu na leen baamtu mm-hmm. ñoom ñoom ñëpp mm. julli gi bi teew mm. rek la ko wax ne ko na na ko na baamtu mm-hmm. borom xam-xam yi nag mm. wute mm-hmm. ne ndax e, yi yi war yi war ndax dafay wàccee dafay rotee ci réer mutlaqan wala dafay rotee ci réer su fekkee ne waa ji gàttañ lu wut su fekkee ne dafa gàttañlu hmm. du rot hmm. foofu it foofu la uute bi nekk hmm. su fekkee ne waa ji jàng na gëstu na waaye lii la mën ñu ne kon euh, réer dana tax mu wàcc ko su fekkee nag waa ji defu dara dafa def lu ko neex rek ñu ne déet li feeñ mooy yi war yi nga xam ne hmm. dafay rotee ci réer hmm. mooy yi war yi nga xam ne dañuy rotee ci réer hmm. yooyu yi nga xam ne kenn mënu leen a dabaatal yi nga xam ne kenn mënu leen a dabaatal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kenn mu leen a dabaatal ci waxtu ndax yonentu julli yi nga xam ne seen waxtu yu weesu na waxut ko mu dabaatal leen waxut ko mu baamtu leen julli gi nga xam ne waxtoom teew na ba wax ne ko na ko na ko dabaatal mm-hmm. hmm? mm-hmm. masala yu bari mm. mën nañoo juddoo ci xadis euh, bi le wala ci euh, question bi le mm-hmm. hmm? jigéen ñu bari ñu dëkk ci kaw bi mm. euh, mën nañoo bañ a xam ne mm. ku gis mbërëg te fekk amaguloo fukki at juróom mbaa fukki at juróom-ñett dégg nga koor warut la mm-hmm. dafa teel jigéen ñi dafa teel a gis nga rek mm-hmm. ñu ne ka ah, yow ama ko balaa ngaa woor da ngay bàyyi ba am fukki at ak juróom ci mm-hmm. ñu ne fukki at ak juróom mooy sinu taklif wala fukki at ak juróom ñett yi ci ñu ne si fukki at ak juróom ñett mooy sinu taklif wa kullu taklifin bi charti alaqli maa albuluuqi bi damin aw xamli aw bi maniyin aw bi imbaati shaar aw bi thamani ashrati alxarwa ndaw si gis mbërëgam fekk fu gàtt ak benn rek la am mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. mu toog ñeenti at yoo xam ne mm-hmm. wóoru ndax dañ ne ko xale nga ba bi mu amee fukki ak juróom ndax kii daf koor daf ko ay war ci at yooyu weesu lu borom xam-xam yu ne déedéet moom xamutoon te gàttañ lu wut ndax mu ngi ci baadiyatu bi borom xam-xam newtu ay jigéen la fa nekkal ak ñu xamut mm-hmm. ñoo ko wax ne ko yow xale nga mm-hmm. mënoo woor mm-hmm. naka noonu julli yow xale nga julli warut la ku mel noonu ñu ne mën nañ koo jox ngànt ànd ak wax ca waroom xam-xam yëpp wax waaye ñu ne mën nañ koo jox ngànt ñu ngi ko teg ci yàlla li mu wax ne wa maa kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula waaw loolu mooy waajibaat yi en général du war mukk mm-hmm. fekk xam dikkut mm-hmm. ndax yàlla nee na du ñu yo- du ñu mbugal fekk yónniwuñu ab yonant mm-hmm. su fekkee nag ne ñàkk xam gi gàttañ lu la ñu ne ah, dafay fay dafay fay waaw dafay fay gàttañ lu la xaw ma na ko laajal borom xam-xam yi mu bañ te yàlla nee na fasalu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun kon kooku dafa gàttañ lu ba gàttañ lu ba hmm? gàttañ lu yooyu yëpp nag mm-hmm. ay wax la yoo xam ne dafay dugg ci bànqaas yi mm-hmm. waaye daal réer moom mm-hmm. waaw umuman yàlla daf koy jéggale ci loo xam ne nii dafa dafa xaraam ci loo xam ne dafa war nag détails yi ñooy yi ci nekk bu fekkee ne xaqi doomu aadama la kooku moom réer du tax ñu jéggal la ko xaqi yàlla ji nag réer mën naa tax dégg nga ñu jéggal la ko mm-hmm. ak détails yi nga xam ne mm-hmm. ñoo ci nekk mm-hmm. Hmm? xam nga lu mel ni asaka par exemple suñ ko xiyaasoon ci ndaw si dañoo wax ne ah ndaw si am na ñeenti atu yoo xam ne joxewul asaka te mu kàllax la te am na alal ndax asaka jooju daf koy wàcc waaw nga xam ne ah kooku nag foog ñu seetaat ko ndax asaka li muy nekk nekk xaq yàlla xaqi doomu aadama ko li ngay joxe doomu aadama miskin ya ko moom mm-hmm. ak ña nga xam ne ñooy masaarifu zakat mm-hmm. kon donte dañ la wax ne yow ñeenti at yi waroon joxe asaka mm-hmm. comme alali jàmbur la dañ koy joxe waaw alal jooju nga xam ne nit kenn ko yore ñeenti at génneelul ko asaka te war asaka war ci réeree ko du teex asaka wàcc koy joxe ndax asaka du ni xaq yàlla kott la mm-hmm. waaye xaq la joo xam ne dafay jàggi dafay jéggi jëm ci jaamu yàlla mm-hmm. Mm-hmm. Hmm? dafay jéggi jëm ci daal yàlla jéggal na jaamam yi lu ñu réeree mbaa lu ñu fàtte mbaa mbaa lu ñu leen euh, dégg forcé wala nga ne yéggal leen juumte waa lu ñu fàtte waa lu leen forcé hmm. lu leen forcé hmm. masala bi ñuy tëjee mooy masala moo xam ne hmm. imaam Malik wute na ci ak borom xam-xam yi mooy masalatu ku juum ci weeru koor ku juum ci weeru koor dagg dagg jotut bokkul ak koo xam ne dafa juum foog ne jant bi sona te jant bi sowut waaw ndax foog ne jant bi sona te jant bi sowut hmm. eh, yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam hmm. eh, mos ndax niir hmm. nga xamee ne ñu toog ba ci kanam jant bi génnaat am xam-xam yi ne fay waru ci lu tax ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jëgalul leen ñu fay imaam Malik nag mi nga xam ne siiw na ci wuuteeg ceeg borom xam-xam yi mooy ki juum ba dog ba mu fàtte ba dog ndax kooram baax na wala baaxut ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dafay mottali bés bi waaye fi ñu wuutee mooy ndax kooram wér na wala wérut ñi ne kooram wér na mu ngi sukkandikoo ci hadis jii nii ak xadis ji yonentu wax ne ku jiw lekk mbaa mu naan hmm. wala ku fàtte lekk xadis ji ne ku fàtte lekk hmm. mbaa mu naan hmm. ci bëccëgu weeru koor na mottali kooram ndax yàllaa ko lexal yàllaa ko nandal ñu kon loolu firi ne dara waru ko ci koor gi baax na imaam Maalik ne déedéet li yonentu sallallahu alayhi wasallam li mu ko dàqal foofu mooy bàkkaar waaye saxaluñu ko wéru koor mm-hmm. koor moom mënta wér ak lekk ak naan mm-hmm. ku xas lekk mbaa nga naan mm-hmm. fàtte nga wala fàtte xoo koor gi yàqu na moom waaye li ko wàcc nag mooy bàkkaar bi ndax dafa juum wala dafa fàtte waaye koor gi moom foog mu fay ko xadis la joo xam ne noonu la ko limaam Maalik déggee kon léeg-léeg njuumte am bàkkaar wàcc la muy xaqi jàmbur mm. te muy xaqi yàlla ci boppam mm. te xaq ja du la wàcc mm. ndax lii kat dafa dugg ci maamuraat yi maamuraat yi ci yiñ jigle la dugg waaw yiñ jigle yooyu comme niñ ko waxee ci détail yële lii nag comme yax da cee wàcc borom xam-xam ne kon koor gi baax na Maalik ne déedéet koor gi moom baaxut doonte nag dafay mottali bés bi waaye dana ko fay ndax wàcceeluñ ko bàkkaaru wàcceeluñ ko koor hmm. liñ ko wàcceel mooy bàkkaaru hmm. dégg nga hmm. dog gim dog ndax fàtte walakin eh, na ko yàlla waxee walakin ma taamadat qulubukum yàlla du leen wàccee jàppee li nga xam ne dangeen ko koo réere li leen di jàppee mooy li nga xam ne eh, dangeen ko koo tay walaysa alaykum junahun fima axtatum bihi walakin ma taammadat qulubukum hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim